yoonu mucc gi yàlla tëral saa yu ngeen déggee joololi bi taxaw leen xalaat te tontu ci laaj bi gannaaw loolu mën ngeen wéy ci seen déglu ñeent fukkeelu njàngale mi ak juróom yeesu mu ngi jàngale ci mbirum boroom alal yi nanu baamtu nettali yi weesu benn kan moo am dooley joxe dund mbaa nangu ko yàlla rek ñaar lu tax yeesu dekkil lasaar ngir wone dooleem ndax nit ñi gis kàttanu yàlla ngir firndeel ne mooy ki yàlla dige ñett ndax nit ñëpp dinañu dekki ngir yàlla àtte leen waaw nit ñëpp dinañu mas a dekki ngir yàlla àtte leen mbind mu sell mi nee na ci màcc saar juróom benn aaya fukk ak juróom ñeent ba aaya ñaar fukk benn aaya fanweer benn ba aaya fanweer ñeent bu leen dajale alal ci àddina fu ko max ak xomaak di yàqe ak fu sàcc di dugg jot ko waaye dajale leen alal ci laaxira fu ko max ak xomaak dul yàqe ak fu sàcc dul dugg jot ko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 moo nu war a solo dund kaw suuf yéesu nee na bu leen dajale alal ci àddina fu ko max ak xomaak di yàqe ak fu sàcc di dugg jot ko waaye dajale leen alal ci laaxira fu ko max ak xomaak dul yàqe ak fu sàcc dul dugg jot ko ndaxte fu sa alal nekk fa sa xol nekk itam yéesu nee itam kenn mënu la jaamoondoo ñaari sang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 duñu ji duñu góob duñu denc ci sàq teewul seen baay bi ci kaw moo leen di dundal ndax ëpp leen maanaa picc ci lu bare waaye jëkk leen wut nguuram ak njubteem te loolu lépp dina leen ko ci dolil bu leen jaaxle nag ngir ëllëg ndaxte ëllëg dina toppatoo boppam bës bu nekk coonom doy na ko benn bës aw waxambaane wu am alal dafa ñëw ci yéesu mu ne ko kilifa gu baax gi lu ma war a def ngir am wàll ci dund jeex gi waxambaane bi wooye na yéesu kilifa gu baax gi yéesu tontu ko lu tax nga woowe ma ku baax ki yàlla rek a baax yeesu ku baax la ndaxte jóge na ca yàlla te amul bàkkaar waaye nit ñépp bàkkaarkat lañu yeesu laaj ko ndax mu ngi topp ndigal yi waxambaane bi tontu ne mu ngi leen di topp te it yaakaar na ne ku jubla la ba war a mën a taxaw fa kanam yàlla moom xamul ne bàkkaarkat la noonu yéesu xool ko am cofeel ci moom mu ne ko lenn rek moo la dese demal jaay li nga am may ko miskin yi te di nga woomle ci asamaan boo noppee nga ñëw topp ci man waaye ci wax jooju xar kanamam lëndëm mu jóge fa ak tiis ndaxte ku bare woon alal la noonu yéesu wax leen ne dugg ci nguuru yàlla dina jafe borom alal giléem jaar ci bën bënu puso moo gën a yomb borom alal dugg ci nguuru yàlla yéesu jàngale na ci léeb wi ci mbirum borom alal yi amoon na kenn nit ku toolam naatoon lool mu amoon pepp mu bare ba ci ay saqam noonu mu tabax yeneeni sàq ngir denc pepam mu ne ci xelam léegi am naa lépp li ma soxla fii ba ay at ci kanam dootuma sonn lekk naan ak banneexu rekk lay def waaye yàlla ne waa ji yow yaa dof tey ci guddi dinga nga dee léegi nag kan mooy moom alal ji nga denc ngir sa bopp yàlla moo moom bakkanu nit ki lii mooy dal képp ku rënk sa alalu àddina te dénkuloo dara yàlla yeesu jàngale na ci weneen lépp ci mbir beneen borom alal yeesu ne amoon na beneen borom alal bu mënoon solu tey dund dund gu neex amoon na itam benn yalwaankat bu tudd lasaar bokkul ak lasaar mi yeesu dekkil lasaar amoon na góom yu bare te doon na yalwaan ci buntu kër borom alal ji yaakaarul woon lekk lu dul ci desitu borom alal ji daan nañu ñëw di mar ay góomam amul woon sax dooley dàq leen yalwaankat bi dee dem ca yàlla nekk ci wetu Ibrahima borom alal itam dee dem safara nekk ci mbugal ca safara borom alal ja seen Ibrahima ak lasaar fu sare mu yuux Ibrahima ne ko maam yërëm ma te yónni lasaar mu caf baaraamam ci ndox te seral sama làmmiñ tuuti ndaxte safar si ma nekk métti na lool ibrahima ne ko sama doom fàttalikul ne ci sa dund amoon nga alal ju bare te lasaar amul woon dara léegi mu ngi bànneexu fii yow yaa ngi ci mbugal ibrahima teg ci ne am na kàmb gu xóot gu nekk sa diggante ak nun kenn mënu koo jàll borom alal ja fàttaliku ay rakam ci àddina noonu mu ne Ibrahima kon nag maa ngi lay ñaan nga yónni la saar ci samay rak mu artu leen ngir ñu bañ a daanu ci mbugal mi. Ibrahima ne ko rakam yaa ngeek mbind mu sell mi ngir mu artu leen suñu dégloo kàddu yàlla te topp ko duñu dem safara borom alal ja ne ko mbind mu sell mi mënula tax ay rakam tuub borom alal ji ne ko suñu yónnee nit ku dee ngir mu artu leen dinañu ko déglu waaye Ibrahima tontu ko ne suñu dégluwul Musa ak yonent yi kon ku dekki sax du tax ñu gëm fii la nettali bi yem am na ay laaj benn fan la Yeesu wax ne war nañu fa denc suñu alal nee na war na noo denc suñu alal ci asamaan su ko defee sunu xol fa nekk ñaar lan la ñu war a def te bañ a jaaxle war nañu wut yàlla ak njubteem noonu yàlla dina dinañu tappatoo ñett lan la waxambaane wu amoon alal ba gëmoon moo ko yóbbu ci nguuru yàlla liggéeyam ak topp ndigali yàlla yi ñeent ndax topp ndigali yàlla yépp mën na musal nit déedéet ndigal yi li ñuy jëriñ ñi mooy ñu xam ne bàkkaarkat lañu te soxla nañu ku leen musal juram lan la yeesu jàngale ci mbirum mbaax wala njubte yàlla rek moo jub te moo baax ba mu mat kenn mënul jub te baax ba mën a taxaw ci kanamu yàlla ndaxte ñun ñëpp bàkkaarkat lañu. juróom benn lu tax waxambaane bi am alal am lu ko metti ba noppi jóge ci wetu yéesu ndaxte alalam moo ko ëppal solo yàlla. juróom ñaar. ca léebu boroom alal ba ndax yéesu wax ne am alal bàkkaar la déedéet waaye gëm alal bàkkaar la war nañu gëm yàlla rek juróom-ñett lu ibrahima tontu boroom alal ba safara bi mu ñaanee mu yónnee ko lasaar Ibrahima nee na ko dundam ci kaw suuf neexoon na léegi lasaar mu ngi bànneexu Ibrahima ne ko am na kam gu xóot gu nekk sunu diggante kenn mënu koo jàll juróom-ñeent su deewoon ba dekki jóge laaxira ngir artu nit ñi ndax ci seen xalaat nit ñi dinañu tuub dina am ñu tuub waaye dina am ñu dul gëm fukk lan moo ëpp solo alalu àddina gëm yéesu ngir mu jële ñu ci bakaar te jox ñu dund dul jeex ca yàlla yan melukaani yàlla lañu gis ci nettali bi ak naka lañu ci feeñe gépp mbaax mu ngi jóge ci yàlla yàlla digge na ci téere bu sell bi ne dina faj suñuy soxla suñu ko jiitalee ci suñu dund yàlla wàcce na téere bu sell bi ngir artunu ngir nu tuub te gëm yéesu ngir yéesu musal nu yàlla dafa jub am na kàmb gu xóot diggante safara ak nguuru yàlla yàlla àndul ak njubadi yàlla mooy borom doole yàlla rek mooy wax kañ la ñuy dee yàlla bëggul bàkkaar bàkkaarkat yi dinañu leen mbugal ci safara ba faw beneen yoon dinañu waxtaan ci mbirum reer bu mujj bi